soobee Serigne Touba saa su day ne kon na xel gën a dalaat bu soobee Serigne Touba boo leen bëggee réew mi di ngeen ci jotaat ndax waxi Serigne Touba da man loolu rek doo laa ci tàbbi waaye nag fi ngeen ñëw nii hmm. fu ñu bëggee Ablaye Wade te xool Ablaye Wade daa bokk ci jëwriñu Serigne Touba yi gëm dina gën a baax ak góor gi dina neex li ñu naqari dañ la gisutoon fii Serigne Cheikh Mbacke Bara rek moo fi nekk Serigne Cheikh Mbacke Bara boo tëddee na nelaw Baxdaad ak li ko wër lépp macha yow la wateel barke Serigne Fallou yow la wateel pour cent ndax Serigne Cheikh Mbacke Baara Doli ku ko woteelu rek yow doonoo gor ndax Serigne Cheikh Mbacke Baara Doli daa nekk sëtub Seexul Xadim nekk sëtub Seexul Xadim rek doy na lépp te nekk nekk ci dëkk bii di liggéeyal Seexul Xadim bëggul dara bëggul lenn lu du liggéeyal Seexul Xadim ndax kere ensemble wane na ko ba ñëpp ne non moom moom nii góor jigéen du fi am tey du fi am ëllëg kon sëñ Cheikh Mbacke Baara Doli war na koo jàppale général des Mourides daal jóg def déclaration ni lañ wax kat jigéen du fi am tay du fi am ëllëg kon suñ Cheikh Mbacke Bara Doli ku ko jàppale jàppale nga sa bopp ku ko jàppale jàpp nga Serigne Touba ku ko jàppale jàpp nga Cheikhul Khadim ku ko jàppale jàpp nga Serigne Fallou te Serigne Fallou ñoo ngi lay jàpp di ziyaare di wàcce suñuy kàddu bu baax a baax a baax a mag mbokku Baxdaat maa ngi leen di nuyu. di leen siyaar kon nag na fexe ba bu bis baa ngeen delloo ko njukkal voteel ko ma gañe bu boobaa li ngeen bëgg ëllëg ñu man koo def ndax jàpp naa ne ki ñuy xëccool dëgg-dëgg mooy borom bopp fas wi te borom bopp fas wi jàpp naa ne kenn waratu koo votel ndax ku ko voteel yaa ngay dooleel borom ñaari tur yi ndax bër ki démb rek soxna si wax na ko waneen nañ ko ndax bër ki démb ci assemblée nationale réunion de bureau la woon man la yàlla may taw féexuma teewe réunion de bureau ba réunion de bureau ba it ay doomu kilifa yeneen yu bokk ci yeneen tariixa waroo dañ faa war a mën a teew ndax bokk nañ ci waaye nag Serigne Touba man la yàlla dogal jaarale ko ci moom ma man faa teew teew teewal fa Touba yàlla dogal bi nga xamante ne proposition de loi bi nga xam ne ànd sàmm jikko yi defar nañu ko indil ko Serigne Mountakha mu signé ko bind boole ca. ñu dem seete xalifa général de Tidiane mu signé bind boole ca xalifa yëpp signe waaye yemuñu ci signé dañoo bind dëggal ne ñoom dañ si ànd ñu indi ko assemblée nationale bi mu ñëwee man maa ko jël di ko défendre wax ne góor jigéen warul a am ci Sénégal dañu ko war a criminaliser ba képp ku ko defati ñu attee la attee kem ni ñuy attee ku rey nit bi mu ñëwee député Macky Sall ne ñoom ànduñu ci loolu nañu bàyyi góor jigéen yi ñu libre d'accorduñ ci loolu menn man rek maa ci d'accord kon keroog ca bureau ba maa fa taxaw défendre diine maa fa taxaw yëkkati fa diine ci turu Touba ak ci turu murid yëpp bi yàlla andee féexal nga réew mi xéwal la nii naataanga ngi nii góor gi njëriñu la boo xamoon Sénégal fi mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne ñu. mën naa ni ci quatorze région yi nekk Sénégal yépp mouvement jàmmi senegal ma nga fa diaspora bi mouvement jàmmi Sénégal ñu nga fa donc élection locale yi damay gàttal rek yi nga xamante ni ñu ngi ci dëgmal ah ñu ñëw ànd ak. a wallu Sénégal wallu Sénégal Serigne Cheikh Mbacke euh, jiite ko Serigne Cheikh Mbacke dañ lay xamal rek ni incha allah am nga ndam am nga ndam ñu ngi koy ñaan ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall mi ñu yaakaar àdduna ak am nga ndam ngir da ngaa yeesalaat sa maam Serigne Touba li nga xamante ni signé woon na ko ca bureau ba ca Ndar loo yow li nga signe fee ca euh, assemblée ba loolu rek lay yeesalaat konte nag ñun. ah dañ lay wax rek nii ànd nañoo ak yow te fépp fi nga xamante nii dem nañ fa ah wax nañ fa nii kat ñun wàllu Sénégal lañu àndal expliquer nañ leen ni ñuy def pour voté pour jàllale incha allah wàllu Sénégal. man 74 laa wàcc fii ci dëkk bi ñu jiital ma ma nekk seen président daayira ak mbootaay ba fii nu koy waxe mosuñu koo teggi daayira sëñ Fall daayira maam jaara daayira sëriñ Touba ñetti daayira yëpp nu bokk ko di ko liggéey a ah, kii ñëw na élection yi mooy dimanche bii nu jëm nañ ko def nañ ko daan defe ku xëy na wut si sama buntu kër bii ma fas yéenee ànd ak yow seet wet gu nekk ña fay watee danaa leen booleeg na ma daan def xale bu góor bu leen yóbbu compagnie leen ca oto ba ba yóbbu leen noonu lañ ko daan defe balaa six a jot suñuy militant daj. ginnaaw yàlla hôpital bi tey bu fi amee jàpp naa bokk naa ci ñi ko xeex ak ñi tax mu am fi ndax bu ngeen fàttali ko projet la bu yàgg mi ngi amoon 2011 président Abdoulaye Wade moo amoon yéenay def ko. bi mu ñu recevoir ab audience la woon ñu xamal ko ne ko Touba amul hôpital de niveau maanaam niveau 3 boo xam ne état moo ko fa def bis boobu maa ngi fàttaliku président Wade daf ne nañu ma wool Modou Diagne Fada jamono jooju moo nekk ministre de la santé. bi ñu koy jot mi ngi nekk dëkk bu ñuy wax Windhoek ci bi mu ne ko dama bëgg nga defal ma étude pour que Touba ñu def fa hôpital bu mag boo xamee niveau 3 lay doon. yàlla dogal 2011 la ci fin bi 2012 élection yi ñëw président Ablaye Wade wàcci président Macky Sall comme état continuité la président Macky Sall continuer pour def ko. ci biir hôpital boobu itam nun man xeex naa ci xeex bu rëy. ndax bu leen fàttee ne hôpitalu Touba bii su dul woon nu na hôpital bi du gaaw ndax ay tappale da ci amoon ndax sëriñ Sidi Muxtaar jamono ji mu nekkee xalif général des Mourides ci la ko tàmbali bi mu ko tàmbalee dafa waxoon ne dana ko defar ci loo xamante ne 18 mois lay doon ñu njëkk a indi assemblée nationale benn benn procès de boo xamante ne dañ cee defoon hôpital bi ñu génnee 16 milliards bi nu génnee 16 milliards yu njëkk yi ay nit ñoo ko séddoo lekk ko hôpital bi taxaw élection présidentielle yi jub si ma def ma demandé def li nga xamante ne mooy li ñuy wax enquête parlementaire te enquête parlementaire bu amee danañu déglu képp koo xamante ne sa loxo laal na ci muy ministre muy directeur muy sëriñ ku mën a doon mu xam ne loolu day indi coow mu daal di gaaw dàq entrepreneur bi nga xamante ne moo waroon a tabax mi ngi tuddoon Olivier Picard ànd ko ak i sëriñ ànd ko ak ci ak i ministre ñu lekk 16 milliards. bi coow li naree am ñu jëm ci ay élections président Macky Sall daal di dagg contrat ba indiwaat beneen contrat daal di gëdd pour ñu defar hôpital bi ci nu mu gën a gaawee parce que xam na ni coow bi bu jógee annoncé wu ko ndax ci ay élection présidentielle kon hôpital boobu bu amee ginnaaw yàlla bokk nañ ci ni def pression ba boobu gaaw. jaadu nañu leeral leen ndax bu fekkoon dañ leen a bàyyi noonu rek hôpital bi léeb ak lippoon lay doon ndax li njëkk a génn di 16 milliards ay nit a ko séddoo te loolu commencé woon nañ ci def euh, enquête parlementaire ba jotoon nañ cee déglu ñu bari jot nañ cee déglu kilifa yi jot nañ cee déglu ministres yi ñu ci baree bari laaj nañ leen kenn ku ci nekk wax fam ca tool kon li may wax ci presse laa koy wax mu doon lu leer nañ kon ginnaaw yàlla tey bu ñu gaawee gëdd def ko xam nañ ne loolu fi mu jëm ci mbedd mi la jëm ci bu jëmee ci mbedd mi baaxul ci ñoom ñu profité gaaw def hôpital bi loolu kon war ngeen ñu koo santé ndax man la ndax man maay président groupe parlementaire bu opposition bi ndax euh, dégg naa benn waay buy ratatati rek di wax dama jàpp ne man maa njëkk a nekk président groupe parlementaire ci département Mbacké kooku yàlla man la ko dogal ci man la njëkk fii nag yàgg na am ay kàngamu politique yàgg na am ay boromi xam-xam tubaab waaye ci man ndonga daara li la ko département Mbacké njëkk amee ci man ndonga daara biit jàpp naa ne ba ma demee groupe parlementaire bi bu leen fàttee ne ña fa jiite jiite ay conseil moo gën a yomb jiite ñooña ndax ay député laa jiite ay député de l'opposition ndax képp ku nekkul ndax assemblée nationale nii la majorité opposition ñu bañ ñu nangu maay chef de l'opposition di Sénégal parce que li am solo mooy parlement ba man maay chef bi ci opposition bi ay meeru ñing mooy mooy président groupe parlementaire bu majorité bi su coow amee wala lu am assemblée nationale wala lu mën a doon nun ñaari président ñooy taxaw décidé xam nga kon loola rëy na te lu ma décider rek ci turu opposition bi maanaam day engagé opposition bi yëpp ca ba ma fa toogeeg léegi kenn mësuma mën a ger kenn mësuma mën a jënd ku fa mas a nekk boo fa defee 6 mois gaa yi jënd la wala gaa yi menacé la wala gaa yi napp la nga daw amul kenn koo xamante ni ci opposition mas nga nekk jiite groupe parlementaire opposition bi ba mandat ba jeex mësul am kon loolu sant naa ko yàlla bu baax a baax